de la commémoration de la prière de Cheikh Ahmadou Bamba sur l'océan Atlantique qui est célébrée les 20 et 21 septembre de chaque année. Euh, C'est le lieu au nom de Sokhna Sodou Khouma qui est la présidente du kuréel de remercier le gouverneur pour sa diligence et surtout toutes les autres euh, autorités administratives et les chefs de service et les forces de défense et de sécurité. Euh, cette commémoration Euh, il faut le dire, date de près de 30 ans. C'était une recommandation du 5e calife général des Mourites, Cheikh Salim Mbake. Ensuite, Cheikh Mohamed Muntaha Mbake, l'actuel calife qui a cheminé avec le Kourel depuis sa naissance en 1995, a promu Sokhna Sodo Khouma à la tête de cette organisation depuis euh, bientôt trois ans. Et c'est sur sa recommandation que la Dar Isbou s'y est impliquée. C'est pourquoi nous représentons aujourd'hui le responsable moral Serigne Youssou Diop avec toute cette délégation qui nous accompagne. Euh, cette célébration euh, revêt un, un, caractère extrêmement important par rapport aux enseignements qu'on peut y tirer, d'abord sur le parcours et l'itinéraire de Cheikh Ahmoud Bamba, la signification de cet acte hautement symbolique dans euh, l'adoration de Dieu, mais également les enseignements qu'on doit y tirer. C'est pourquoi chaque année, euh, il y a beaucoup d'activités qui tournent autour de cette commémoration, dont l'activité phare est certainement la grande prière qui se déroule sous l'égide de Serigne Fallou Mbacké, l'imam de la prière des deux fêtes à Touba. Mais euh, depuis l'année dernière, par rapport aux orientations du Khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, il a voulu que ces journées soient particulièrement marquées par euh, la déclamation des Khassidés. C'est pourquoi c'est une journée qui, au-delà des membres du kuréel Julli Géej gi, au-delà des communes de Parcelles Assainies ou de Yoff, concernera euh, toute la ville de Dakar dans son étendue. L'ensemble des daïras, les fédérations des daïras, les kuréel de xasaayid qui sont sur l'étendue du territoire de Dakar se sont appropriés cette commémoration et sont actuellement dans une phase d'effervescence en direction euh, de la célébration de cette journée très importante. Donc c'est le également de saluer et surtout de remercier le représentant du Khalif général de Mourides à Dakar, El Hadj Mbacké Faye, mais également toutes les autorités eh, qui soutiennent eh, cette commémoration. Eh, comme l'a si dit Mamadou Mamadou Ndiaye, c'est une journée qui doit nous donner beaucoup d'informations et d'enseignements. Et d'ailleurs, ce qui se fera autour de ces deux jours, la journée du vin qui est consacrée à Mame Cheikh Ibrahima Fall avec en perspective un méga courriel de Zikour la Baye avec une très forte présence des disciples de Mame Cheikh Ibrahima Fall mais également la journée du 21 avec euh, la prière comme nous l'avions dit et également la journée des Khassaïd la déclamation et l'implication des daïras de Dakar particulièrement les courriels de Khassid tout au long de cette journée donc nous prions que le Seigneur euh, nous euh, amène en ce jour et que toutes les prières soit accepté et que nous souhaitons une longue vie et une santé de fer au Khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Mountakha. Voilà, il faut dire que euh, l'édition euh, ce qui montre qu'il y a une très longue tradition entre le Kourel et les autorités administratives et à voir le déroulement du CRD de main de maître par le gouverneur et les chefs de service qui ont répondu, on voit que le courant passe très bien. par rapport à l'organisation de l'année dernière et des euh, éditions passées, on ne peut que euh, avoir surtout par rapport aux promesses qui ont été tenues et qui, comme chaque année, ont été euh, respectées euh, convenablement. toujours est-il que l'événement grandit d'année en année, avec cette année particulièrement le déferlement, si on peut le dire, des daïres de Dakar, des courriels de Khassaïd, ça veut dire que le gouverneur a bien mesuré le challenge et de service seront, Inch'Allah, la mesure. Exactement, euh, c'est une base d'évaluation, 100 ans. Et depuis le rappel à Dieu du fondateur du mouridisme en 1927, il faut dire que cette année, nous sommes dans l'année hygrienne 1446. C'est un événement très important qui va permettre certainement euh, aux panélistes, aux conférenciers, aux, dans le, dans le journal de revenir sur cette base Quel a été le message prôné par Cheikh Ahmed Bamba Quelles sont les raisons qui l'ont poussé à faire cette prière sur l'océan Atlantique Quelles sont les leçons que nous autres musulmans, mourides particulièrement, jeunesse, femmes, sénégalais, etc., devons tirer de cet événement. Donc ce sera une base d'évaluation qui certainement va être déclinée par les différents programmes culturels qui vont se dérouler entre le 20 et le 24. Euh, je me nomme Hassan euh, Gueye, donc je suis euh, l'adjoint au gouverneur de la région de Dakar. chargé des affaires administratives. Je voudrais également vous remercier pour votre présence euh, en vue donc, de la médiatisation de cette importante réunion donc, qui s'est qui, qui, qui tenue aujourd'hui à la gouvernance dans le cadre de la préparation de, du Magal euh, du Ligegi qui consiste en la, la euh, célébration donc, de la prière du chef sur la mer. Donc euh, c'est euh, euh, c'est un événement qui doit se tenir donc les 20 à partir du 20 donc jusqu'au 22. Et donc au niveau des communes de Yoff et de et de Parcelles. Et donc c'est un grand événement qui fait rallier à Dakar plusieurs milliers de pèlerins et donc dont leur organisation par conséquent donc dépasse le cadre d'un comité d'organisation et nécessite par conséquent euh, l'intervention de l'État pour la prise en charge de certaines missions régaliennes à travers les, les chefs de services Donc euh, aujourd'hui, on a présenté l'ensemble de l'expression des, des, besoins, soit en termes sécuritaires, euh, sanitaires, mais également sur le plan de l'hydraulique, euh, de, des appuis euh, donc, en vue de la, de la santé, etc. Et donc euh, l'ensemble des chefs de service ont également pris des engagements fermes en donc de la satisfaction de toutes les requêtes. Et donc à l'issue de la rencontre, nous avons tiré les conclusions donc en demandant à l'ensemble des chefs de service de déployer tous les efforts nécessaires à la satisfaction donc, de l'ensemble des requêtes qui ont été soumises par le comité d'organisation. Donc j'ai demandé au, au, aux deux sous-préfets donc d'assurer le suivi donc sur le terrain donc pour le respect des engagements mais également de nous rendre compte de toute difficulté qui est susceptible d'être notée sur le sur le terrain donc euh, il a des maintenant pour les pour les besoins il y a euh, qui peuvent carrément être euh, satisfaits satisfait, donc au niveau régional par contre d'autres qui dépassent le cadre l'échelon régional donc sera porté à qui de droit donc soit les ministres mais également les autres structures de l'État, donc ils sont au niveau, au niveau central.